Assalamualaikum Bok Internet University à travers une chaîne YouTube Jawasinfo TV, Facebook, Twitter, Telegram, active www.jawasinfotv.com दोबारा नाइटान तो ये तम एक दिमाश नाफ की फनक जरो चिवेरो सतांग ड्रीम इवेंटे दोबारा नाइटान मिडल पले ची सद म्युनिसिपल बकिसन तेरा म्युनिसिपल बकिसन She said some national popular Nigerian police she is on us Angola to Javas. She résultat du massif d'Olomte. Fallait qui zone 11 c'est bon en aussi, ça qui en a signé correspond du mot de Dieu. Fallait terrain municipal municipal fait que zone une go au zone parmi fi ci commune de Diobass ci seen championnat national populaire tey ji match bu fa amoon ñaari match la woon comme d'habitude match cadet yi ak euh, lii di match senior ci cadet yi nag euh, ASC euh, dajala parmi di école de foot bu parmi mu daan dajeek ASC Jaspala ay dajale pax mi nag ñu ASC dajale pax mi ñoo mujj daan di di ASC Dias Palam benn bal ci dara ci waru senior ci waru cadet autant pour moi ci waru senior nag mu ngi amoon lii di ASC Dias Palam ak Maggi tey Maggi tey nag boo ko déggee mooy les vétérans donc match boobu nekkoon match boobu macha allah ci diggante ñaari formation yooyu donc ba jéggi dayoo sax nuñ ko foogee. première mi-temps lañu joué match équilibré donc euh, kenn dugalul sa morom dara bu ñu demee ba deuxième mi ba euh, war a jeexal bu ñu desee lu tolloog fukki simili wala lu ko gën tuuti sax ci la lii di jouru ASC dossard numéro 14 bu ASC euh, Maguette mooy vétéran yi donc am carton rouge carton nag moo tax eh, ñii di ay vétérans yi di jouer à 10 eh, ci loolu nag teewul eh, ci lañu marqué seen bi donc euh, marqué bi bi nga xamante ni moom moo may 3 points lii di vétérans yi foofu ci terrain municipal bu Kisane waaw bu ñu jógee zone baax mi dañuy dem fale ci stade municipal bu Babac fekk fa zone 11 A Voloto Diobass poule D ñoo doon jongante seen deuxième journée championnat national populaire première heure ASC Doul Faye bu Bambey moo doon jàkkaarloo ASC Bokk Jom bu Kër dara ñoom ñaar nag dañoo dem bokk dugaloo si morom dara euh, deuxième heure ASC Koudiak moo daan lii di ASC Peliou euh, ñaar ci benn. ce walu program na so on ah moto jamas sur pour ah mon de troisième journée premier es ñu ngi war am équipe war a baax bu taten bagara ak didi jamono bu kër ibra fall deuxième heure ngola di di daje ak lii di ay sedenta bu taten tukuleur waa noonu la ñuy def rek dem fële ci zone onze fekk fa Mody Dioum ci seen championnat national populaire bu fa am tey. asalaamaaleykum ñoo ngi fii ci terrain zone onze doon fi amal suñu championnat populaire nekkoon suñu fukkeelu guddi bëccëg ak benn. mu doon dox si diggante déggoo bu ndiireen ak AGN bu naafar ñaar ñooñu nag ñu ngi bokk si poule D AGN bu naafar bi moo nekkoon génnam bu njëkk ndax dafa am match retard déggoo bu ndiireen bi moo nekkoon ñaareelu match am dafa témboo woon première sorteem ak mbamba ASC Mbambara Chérif tey nag match bi nekkoon na match bu neex bu amoon ambiance public bi ñëwoon na wuy si nekkoon match boo xamante ni tamit bëri woon na occasion de but ci pàcc bu njëkk bi ba ñu fubalee ba am fukki minute ci la déggoo bu ndiireen am occasion bu njëkk waaye malheureusement dugalu ko noonu la occasion di multiplier de part à l'autre euh, Naafaar AGN bu Naafaar am na ay occasion de but déggoo bu ndiireen am na ay occasion de but ci pàcc bu njëkk bi noonu la ñu demee noppalu ji zéro zéro ba demee naan naan ndox mu sedd ma ci crème ñëwaat ba ñu fubalee ba nga ni nañ lu mat fanweeri minute si la AGN bu naafaar dugal ben biom ci erreur bu gardien bi def si ben relance bi mu doon def raté relance bi attaquant AGN bi dóor mu dugg ñuy dem ba ci temps additionnel bi si ben passe en profondeur bu am si la attaquant déggoo bu ndiireen bi dóor bal bi góol bi génne ko deuxième attaquant bi ñëw mottali ko mu dugg noonu la match bi jeexee benn bal ku ne un un un bi partout nekkoon na match boo xam ne nag am na tuuti lu ñu ci xaw a déplorer rek mooy ba match bi jeexee am na ay kàddu yu xaw a jóg yoo xam ne nii rafetlu wuñu ko rafetlu wuñu ko lu ñuy ñaawlu la suba nak nek na bes boo xam ne nii dañ koy noppalu suba ropolo la zone onze c bu aneen match dinañu ko reprendre allah le vingt sept muy dox si diggante mbul gi bu mboojeen ak déggoo bu kër Banda Gueye mu nekk match boo xam ne nii bu neex lay doon ndax mbul guy gi dafa jógee ci match nul déggoo bu kër Balla gay jóge ci defet kon match la match koo xam ne nii bu ñëpp yi xaar la yaakaar ci ne dinañ ci gis football bu rafet football bu ànd ak discipline di ñaan yàlla yàlla wane ñu ko ak jàmm que le loolu moo nekkoon suñu programme ci bésu tey jaa ngeen jëf. li ma nekkoon Sénégal laay taal tey jii di dimanche 25 septembre 2022 ñu leen ci jox daje ba suba ak jàmm incha allah ci beneen numéro di jégaluwaat bu baax a baax a baax baax ci teewaay stade bi mais aussi ci baat bi ndax euh, yaram bi daal moo neexul dafa sant fay fan